alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin bokk jullit yi tedd yi teew ak bokki taalibe yi murid teew yëpp ñu ngi siyaare kilifa yu fi te teew yëpp di suñu kilifa te kenn ku ci teewaan rek mooy teewaan ñëpp. waaye ñu jël nuyoo bi ak kàddu yëpp teg ko ci loxol Serigne Hamsatu Mbàkke bi Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne mooy jëwriñu kuréel gii di Xuddaamul Xadim te dajale fi kilifa yëpp dajale fi bokkitaan bi yëpp di nuyu Serigne Hamsa bu baax a baax di ko siyaare di ko ndokkal ci kàddu yu rafet yi nga xam ne wax na ko fi te muy loo xam ne naka njëkk waxtu ne ci loolu la nekk mooy di défendre yoonu Sëriñ Tuubaa bi te lépp loo xam ne yëg na ko ci rek mu naqari ko jëfandikoo xaddis ba rek ida raa minkum munkaran falyuxayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisaanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi kon loolu bu ngeen déggee mu yëkkati kàddu loolu looloo tax mu di ko def lii muy def itam ci ndigalul kilifaam bi sëriñam sëriñ Saliou ci la ko tegoon ndax dégg ñu leeral ko léegi te jubluwu ci dara lu may liggéeyal maamam ji tedd ji te ku fi nekkal sëriñ Touba tàmbale ci Cheikh Mouhamadou Lamine Bara jaar ci Cheikh Sidil Moukhtar ba agsi ci Cheikh Mouhamadou Mountakha ku ci agsi day delluwaat ba ca kilifa ga laajaat la ci ndigal nga yeesalaat ko mu wóoyulaat ko kon li muy def ni mu ko leer la ci ndigal la ko def kon loolu ku ko xamut moo ci im sikk sàkka waaye ku ko xam danga xam ne lu mu ci def rek du ci kilifaam ndax sañu ko sax ndax xam ngeen ni mu demee ci yoon bi ak ñi ko yar kon ci ndigal rek la mën a dox ci taalib rek la mën a dox kon loolu jàpp naa ne kenn wërte am sikki sàkk ci loolu war nga ci am xalaat kon ñu ngi koy santal bu baax di ko gërëm ci eh, xalaat yu rafet yi nga xam ne am na ko muy lu jëm ci dëkku Touba ngir xam ne dëkk bi dëkkub Sëriñ Touba la boo xam ne moo ko goroon sanc ko te la mu waxoon rek yaar rekk a tax ma sanc dëkk bi daw nit ñi ak li daw li nekk ci loxol nit ñi kon bu dëkk bi demee ba agsi fii ba ni ko nit ñi di waxee nekkul ab dëkk am réew la waaye li muy yaat taat bu doon am réew itam na nga xam ne kër la kër sëñ Tuubaa kon dëkk bi sëñ Tuubaa ko moom lu fi neexul sëñ Tuubaa waru am kon lu ngeen fi dégg rek muy loo xam ne yii nga xam ne yéen ko fi dégg yëpp day loo xam ne moo àdduna ñoo ànd ndax lu yaatu rek amul rax te Serigne Touba dafa woote ñëpp wuyu ko ñi ko wuyu si nag lu ne da cee nekk ndax ku gàddaay ko ne ñëw da nga indaale sa aada da nga da nga nekkoon dugal ko ci biir dëkk bi moo tax dëkk yi bindoo niiw bindoo loolu nag xar baaxu Sëriñ moo tax waaye dëkk yi mel noonu ci àdduna yëpp saa soo xëyee danga dégg nit ko faatu wala nga dégg ku njam wala lu muy dem waaye dëkk bi saa su fi déggee lu mel noonu bala ko déggee dana yàgg mm-hmm. kon li Sëriñ ñaanoon ne na nga ko def muy dëkk bu am kaaraange suñ borom wuyu na ko ci loolu kon nag lépp lu nit di def ci taalibe yi rek mooy gàttandu loolu ñi nga xam ne nag dañoo nekk ci dëkk bi te nekkewuñ fi nekkewuñ fi lu neexul sëriñ bi loolu sëriñ Touba la ñuy jàmmal ndax sëriñ Touba moo ko ñaanoon ci Matlabul Fawzayni wax ne nan ko def muy dëkk boo xam ne képp ku bëgg jàmm yàlla day yomb ci waaye mu nekk dëkk boo xam ne képp koo xam ne bëgg ngaa def lu naqari yàlla day dox sa digg moom kon ñi fi nekk itam te mel ne loolu neexu leen wala bëgguñ ca tënku loola néew na sax waaye nag mët a ndax lu mu néew néew mën naa yàq lu bare bare kon nag loolu ñëpp am responsabilité ci jéem a xeex ak ñoom xeex gi nag ni ko suñu doom waxe léegi sëriñ bi siru coow ñu ngi ko ndokkeel ci kàddoom bi li mu wax yëpp leer na dafa mel ni nag la Serigne Touba waxoon rek laa koy fàttali dafa woote ci njaarim Serigne Mari Jaay mu ne ko ndax ñëpp ñëpp ñëw nañ mu ne ko ñëpp ñëw nañ mu ne ko woote ñépp wuy si la de woote ak dëgg ñëpp wuy si la ca yàlla mayu ko kenn mayu ko boppam bari ko may kenn kon fexe ba kenn du wax ci yow dara wala kenn du ñaaw njortu ci yow dara loolu kenn mënu ko li am solo rek mooy di seeral yàlla di seeral Sëriñ Tuubaa mi di tax di jëf loolu rek moo di ci am solo ndax bu leeroon ci ñëpp ñu rafet ci njort di la tàgg te sa digg ak yàlla leerut sa digg ak Sëriñ Tuubaa leerutum yàgg-yàgg danaan fàgg kon li ci li ci am solo mooy Sëriñ Tuubaa mi ngeen di seeral te ku leen xam ku ne xam sa kilifa kii di sëriñ xam sa xam la yow mi xam ñi ne ci biir daayira danañ xam ne sëñu leen def lu dëppootu ndigal sëñu leen jàdd ndigal suñu leen def itam lu juyoog bëgg-bëggu sëriñ bi loolu moom fu ne lañ koy xalaate bu des ci yéen xanaa ku leen xamut kon loolu jërta sax leeral ndax li nga wax nag in jaakum fa bi naba'in fatabayyanu ndax loolu suñ borom da koo nattoo lislaam nattoo ko yoonu murit ndax yoonu murit bu ñu koy tudd lislaam a tax kon lu dal lislaam rek faaw mu jël ci wàllam moo tax lislaam adduna sépp ñi nga xam ne bokkuñ ci dañuy waxtu ne ñi ngi jàmmaar la moom di ko xeex ci ay xalaat di ko xeex ci ay tuuma di ko xeex ci yi gën a ñaaw waaye dañoo mel ne kuy suul gar luñ gën a suul rek muy gën a yëkkati muy gën a feeñ kon loolu mooy mbirum Sëñ Tuubaa kenn mënu koo far kenn mënu koo naxal kenn mënu koo gàkkal luñ ko gën a xeex gën koo gotti gën koo suufeel mbirum Serigne Touba di gën a yëkkatu loolu moom kenn doonu ci dara Serigne Touba ko fàggul boppam ñun ñi kenn doonu ci dara kenn jëfu ci dara Serigne Touba mën naa défendre boppam mën naa lijjanti biram waaye nag loolu li Serigne Hamza waxoon léegi waxtu nekk ma di ko fàttali sëriñ Saliou dafa waxoon ne taalibe buñ tooñu sëriñam buy fay du tàggoo moo tax ñi nga xam ne itam dañuy yëkkate ay kàddu yi jëkkut di ko jëmale ci yoon bi nañ xam ne ñoom itam lu leen ca fekk rek ñoo ko teg seen bopp ndax bu dee kilifa yi jàmm la ñu woote lu rafet la ñu woote ndax uddu ila sabili rabbika bil hikma wa maw'izatil hasana di jadilhum billati hiya ahsan ndax alxuraan dafa wax ne wala tujaadilu ahli kitaab ahli bi illa billati hiya ahsan ñi nga xam ne bokk ñoom diine sax booy wax ak ñoom wala ngay def ak ñoom ji daal na nekk ci waxin bu rafet rafet kon waaye nag nañ xam ne positif nit dafa sori ci biir nit te ñun Serigne Touba ñu génnal suñ jëmm génnaluñ suñ lépp kon ku ci dégg loo xam ne wóor na leen lii jàpp nga ne diis na ci sa biir xol waxtu wooy doo ko tey loolu la Serigne Touba da ko def ci xolu tari bi kon loolu na ko ñëpp xamee noonu tañ xam ne yoon tañ xam ne itam yoonu murit yoon la woo xam ne dara dëppwu ceeg yàlla santaane dëppwu ceeg lu yàlla santaane wut dara dëppwu ceeg loolu sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Sëriñ Tuubaa dafa ñëw ngir yeesal yoonu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam am na ñoo xam ne nag la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon xetuk Sëriñ Tuubaa xëy ñu dem kooku nag kenn mënu ci moom dara ndax si Sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne ñaar rek fi ñëw ñi nga xam ne àllaaxira leen fi indi ñooy ñooñu lañ fa bëgg mënaan naa leen ko naa ko defal ñi nga xam ne adduna leen fi rek yàlla suñu doom jox na ma ko ba ma door ko soxlu ma ci dara. ci ma jaaxalaa mooy ki nga xam ne mooy yàlla def neexu loolu nag nañ xam ne du fi jug mukk lu ngeen dégg rek looloo ko andi waaye Serigne Touba noppi na ci mbiram waxoon na Serigne am sëriñ Jaxate ne ko sama dëkk bi sama yoon wi sama xasida yi lépp maa ko yoru sa sama bopp doon ma ci kenn dara kon na suñu suñu xel dal suñu njortu gën rafet mu wóoru ñu ne képp ku jug da Serigne Abdoul Ahad Mbacké waxoon ca waxtaan wi mujjee képp ku yëkkate ay jëme ko ci réew mi ay wadu la loolu nag bu koy wax Touba ci jiitu ndax Sénégal boo amee jàmm Touba